dagg observateur nañu waa Angola dagg buum ga buum gaa nga daggee ca Bamako démb ci dibéer trois heures matin ñoo ngay toog ne xew di xoole di wax waxi prime taxaw temm ne bu ñu leen ko fayul du ñu faste xànc ak morom ma yéene kay bi nañu ku ca nekk ci ñoom million bu manqué ñeen fukki junni la ñu la amel kilifa ya dajale fukki million ak genn wàll dem jox leen ne leen nañu ko séddoo ñoog seenub entraîneur ña des bu ñu demee ndakaaru danañu lijjanti seen mbir gone yi jël xaalis ba dugg ci seen biir waxtaan ba mu neex leen génnaat jël xaalis ba delloo seen i borom ne leen nañu boole yépp fay lu ko mooy ngeen jëlaat seenub xaalis gars yi dem kaw dem suuf gone yi Tafa Gueye ne mukk nañu fay lépp rek ba ñu téye koppar yi Tafa Gueye moomee yéenekaay bi nañu defaroon nay bagaasam ba jekk ngir ñibbisi ba fa xale jigéen ya te du enquête bi ba ko yëfee soofee la mu leen xamal mooy lu ngeen deful ci yéen la li leer ba leer mooy bu ngeen moytuwul man danaa ful camp Sud Quotidien nañu camp yi gaynde ya démb dafa meloon nepp waa Angola deux paniers yeeg trois paniers yi fu ñu toll di leen ko samañ gaynde yu góorgóorlu woon ba dab leen tollook ñoom waaye ab diir la ñu fa def rek ñu roppi leen journal bi tënk wax ji ci ne Angola déqati na Sénégal la Sénégal nañu Souleymane Ndéné Ndiaye Moustapha Guirassy Mamadou Diop Decroix ak Juma Jang Jaxate Ndeena Njaay ne ba mu ko leeree ne demam ga ca Bamako du fa def lenn lu dul um xale ya mënoon naa bañ a dem xale bii di guy gi la mu waxoon Bazoka def na ko réew mi quotidien nañu guy gi daan na Bazoka gàddu drapeau MEDES yóbbu observateur nañu waaye moo daan kaay leen yëkkati ko fa la combat ba mujje ndax guy gi dafa daan basokaa bu nuppi jële ci ay gaañu gaañu guy gi ñu ci sunu lamb sama tànka damm yéen bi bi nañu ci juróom-ñeenti minute ci la guy gi tëralee Bazoka romb ko fa léegi nag ma nga jëm ci Ama Balde ñu demaat ca laas yéen njëkk jàmm journal bi nañu njiital APR gi wax na fay dëggam diggam ak Abdoulaye Wade nekkinam ak ñi mu bokkaloon parti démocratique sénégalais gis-gisam ci biir Benno Siggil Sénégal xalaatam ci partem bi ñu bëri jàppee parti xeet lépp Macky Sall dikkat na ci ci laas yéene kay ci l'observateur Macky Sall nekkal la ko ca ci Karim Wade ma demoon ca këram keroog Macky Sall ne bu fay demati na ma tàggoo ña mu tàggool di waa parti démocratique sénégalais Macky Sall ne la koy boolewaat ak ñoom moo di ñu jël ko def ko seenub candidat ci wote présidentielle 2012 yi Souleymane Ndéné Ndiaye Abdoulaye mel na ku naan ko ci xët mu njëkk la soleil sunu candidat weesul Abdoulaye Wade amuñu plan B wutuñu ko ci la seen kay zil ne candidature Abdoulaye Wade gi du jàll loolee xel xalaatu ko borom candidature gi di Abdoulaye Wade le soleil nañu démb ma nga woon ca Yoff daa demoon nuy ji bay Ablaye Thiaw populaire ne ko Abdoulaye Wade ku ko xam-xam nek nuyoo ak doxi mbokk yóbbu ko woon ca Yoff wuti électeur moo ko yóbbu woon ca kër xalifa ba beneenub xalifa bu nekk ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool tey di xalifa général lu Tidiane yi Serigne Mansour Sy comité enquête yéen a kaay nañu suuf su mu doon sàkku ca Pout ngir def fay daaraaki tool jaar fa mu war a jaar bindi bataaxalam jébbale toog di xaar moom xalifa bi amul lu may dégg ñu ne suuf sa jox nañ ko benn waaye bu ñu naan dàngot liee ko metti Serigne Moustapha si Djamil di doom ci Serigne Mansour si xalifa généralu tiijan yi nañu ci observateur sama bàyyi noppi na ngir yëkkati téeméeri milliard jox ko dàngot ngir dampe ko ko lépp rek ngir bëgg ñu jébbal ko suuf sa mu yeggale yéenam kii ñu bëri yéene seen bopp mi ngi ci xët mu njëkkool Fadjri Grand Place muy